Muhyiddin before Marhaban Ramadan Oh, oh Ramadan Ya Ramadan The month of Quran Lisan masih Feeding before Marhaban Ramadan hmm. Ya Allah gaal yow loo def rafet na de. ay bëgg nga bëgg rek. kontaan naa si. kontaan nga nii. kontaan naa si torop. def ko yëfi aw rek yow daal nga def gis na ko rek. kontaan naa si yow de. <laughs> ah kontaan naa si yow. thank you jàpp naka xosbaan. baa mu ngi si jàmm. baa mu ngi si jàmm bàyyi ko toppatoo. baax a baax ah man bëgguma ñaareel. defal yooyu noonu nag ndax maman si ñoom su ñëwee. Ah. dañ laa randal kon toogal sa place bu baax. nga nga saw am place de.

ma ne la bu ma fa delluwaatee ma ne ko ne suma yaay dama ko war a yóbbante xaalis. Mm-hmm. mu jox ma five thousand dollars mm-hmm. maa ngi ko yóbbante suma yaay. yooyu jànqal na su daganoon nag dana la wax ma wax bi may ma benn mi te waaye daganoon nag man sama jëkkër dina ma jëndal déedéet xoolal dinaa ci dox pour loolu. waaw ah, waaye daganoon damay sii ah ah ah yaa ngi yow tam yaa ngi may yaa ngi may ni ci ron rek waxal naa waxal naa wax ak moom ñaata mètre ngay sol yoo xam na ñetti mètre dina ma doy ñetti mètre. xanaa boobu da nga koy denc après après weeri koor bi ngay sil ma ko xanaa. waaw parce que yow tam nga mun a ngi na ma. waaw mi tamit thousand dollars thousand dollars thousand dollars ak daa lay léegi ñaata nga mën léegi damay génn maa ngi ci waañ bi rek yow daal yaa ngi nii dugal nga si sëy bi rek bàyyi solo ko togg lu ma xamoon lu ma jàngoon sax grade woon sax fàtte naa ko waaye jël xale yi lan la nii ah teel a sëy waaye maa tawut nag yow sa jëkkër xale nga muy xale yow fàtte nga man grade seven laa bàyyi school yi waaw ba léegi toppatool sa boppa toppatool sa bopp sa yaram waaw man bàyyi ma maa bëgg a bagage am yi yoo seeru am naa ne daal la soo amee benn thousand five thousand eight thousand five soo ko amee nga am daal am si poos yëpp daal xaalis am na ko dina ko def di man may aw ah bi naa ci yow ñaanal am comme ku mel ni daal mbay nag léegi nag da nga war a sëy nag amal jëkkër nañ am husband nag ñu am dadi dadi léegi tey bokk nga kenn si koona bi nga bàyyi farantu bi nag bàyyi boyfriend bi girlfriend bi bàyyi nii ah xoolal lii yëpp time la léegi tee mu damay toggi ndog waxtaan bi neex na lool su ma ñëwaatee ah. mooy dàq waxal mbaraan bi nag nañ gaay nag te man sama bopp. fii balaa nekk si nekk si time bi. su ma su ma doon sax dama doon ñëw sax. dama nekk si nekk si moom incha <coughs> la ah? depuis ci suba ba légui nga génn bàyyi sa kër noonu ñi ngi noonu di noonu mënu mënuma fexe ba gis ko sax ci kër ba mu wàccee ba léegi mënuma koo gis ah dafa ngeen loolu jaaru na benn saali benn saali xoolal lii benn saali kay toog asaani fan la dem dafa daf benn xaritam. seeti benn suba ba léegi man maa ngi wàcc mënu ma koo gis ci kër gi te ñi dégg nga ñu ngeen nodd five noonu léegi ndoog jot. waaye man maa si wàññi maa ko toogalee. xanaa yow yaay sëy moom moo nekk di sëy. waaye su ma nekkee loolu sax du sama wax ak ba sa anti dinaa wax ak dama ci biir ngay daal ba sama si daal ak close ma dem julliwaale. genre koor koor gi day mel ni day gën a jeex di gën a di gën a gudd. lii jamono bi mu commencé jeex mu gën a mel ni li des bëriwul te koor te gi ñëw. Ah. li da moom pexe pexe la kon defe moom dina ca ak kër goo xamante ne sa moo loolu amul temps fu nekk mu ci toog bu heure bii wara defaral sa jëkkandoo ba nekk àll bi di mentañ mentañ waaye du ma boole ma bàyyi ba ñëw fi rek fekk. di. waay. nijaay yaa ngi yow foo demoon. marché ba heure bi yow dip ma wàcc ba léegi tri ba six léegi mu jot nga ni marché nga demoon lan mooy dem ba jël auto yow boy dem do tago sax da ngay jek jek top dekk bi di wër di param param mel ni bëri maam wër ba yak der ni jaay lan laa wër far jàllo yow da ngay sey jigen bu re sey day tok ci kërëm ah kon man nekuma di sey jigen ñi baax ñi sey ñepp weeru koor bi ngi toog seen biir kër man tay mo dama bon parce que weeru koor bi mu ngay jex tay dama bon yow yow da nga yaakaar ne bébé sali moy sey xana bébé sali suma doom la bu nekké sa doom yow bo tok war na raxas waye bu waré tok war na raxas dang ko ci jappale diko duwan bebe sale xalal seuyul yow yaay sey kon man duma fay def soko don def dana ci fek yow nijaay wax bi da bari julli bi suy jot ci rek nga indi ay histoire ay seytaane yuma ma xamut kon bugulo ma jëndal yere julli yow ñaata julli mo fi ñew ma dila jël yow dama dama ma sa manki ben yere julli waw gañ la ren de commencé ren dañ ci eggagul giso julli ba ngay ñew jess nga ma indi ay seytaane indi lu ma la seytaane dama lay wax ma dama lay wax deug jigen bu day sey day xam day sey jigen juy sey bokk nag ku seyul kon mom sey nii dama lay wax rek kon sey sëyuma dama lay wax te yow ba yow bala nga génn kër yi da nga ma war a taamu ni ma damay dem beurep sangam ma xam ni dang fa dem waye jek jek top di du wër ni rek moy lan waaye yow nijaay man dang ma gis may wër xana waruma dem marché degal li ma la wax ah waruma dem marché sama wax du ci beuri nak fayda trop yaa ma gën a ñàkk fayda ñàkk fayda ba bëgg a dee nekk fii di xuloog jabar rek chaque jour ah weeri koor war maa jël xaalis ba dem jënd nekk yëre julli nga bañ a jënd ko jënd si nii baa ci naa parce que yow xam nga ma man duma la may dara